mbokk yu nuy euh, teewlu ci Touba Argentine TV ñoo ngi fii ci kër sëriñ Cheikh abdu Mbacké ibnu sëriñ Cheikh Fatlo moom sëriñ Cheikh Fati moom borom Daarul Moxti ci màggalu borom Daarul Moxti gi fas yéene def ay kàddu yu barkeelu ci sëriñ bi fàttali ne moom it jàngalekatu alxuraan la moom sëriñ bi yor fii daara yor fi ay gone di leen jàngal li nga xam ne moom moo di alxuraanul karim ak xam-xam. sëriñ bi télévision Touba Argentine TV ñëwoon fii ci màggal gi euh, ànd ak Alaaji a Seck fa yéene sàkku ay kàddu yu barkeelu ci bis bu am solo bi nga xam ne mooy bisu borom daal Muxti bi yan kàddu nga fas yéene yëkkati ci bis bi bismillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa wa sahbihi wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yéen mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen nuyu waa Argentine TV di rafetlu seenu ñëw bu baax ci bis bi nga xam si ñëw nañ bokk kook ñun loolu moom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di di ci sant bu baax nag xam naa suñuy kàddu moom fi koy tàmbalee mën naa bañ a gudd ndax ñun bariwun sax lu ñuy wax ci ay média yooyu waaye yéen moom ki jiitee média bi day suñu xarit di suñu wóllëre moo tax moom suñ ko mënut it incha allah dinañ ko jéem waaw di la sant bu baax nag yow sëñ Arona yow mi ànd ak sëñ Gora Seck ngir ñëw liggéeyal borom Darou Mouhty ci màggal gi ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm gannaaw loolu nag euh, màggalu daarumu Mouhty moom <coughs> dafa nekk lu am solo loo xam ne si màggalu jullit ñi yëpp la màggalu gu murid yi yëpp la ndax borom Darou Mouhty ni meloon ci Serigne Touba moo waral muy màggalu jullit ñi ñëpp di màggalu murid yi yëpp ndax Serigne Touba daana wax kat. ànd ak man doy na waaye ànd ak Thierno ëpp na bax na ba tax na lool nag ku ko xam buñ la waxee màggalu Daaru Musti loo ci mën a jëf ci lu baax rek da ko ci jëf ndax boo ko ci jëfee suñ boroom moo lay fay baax na di di leen xamal ni bis bi dafa amaat beneen occasion boo xam si dafa lëkkaloo ko diine lislaam ndax saxbaan ci boppam dafa nekk weer woo xam si mooy weeru euh, mooy weeru suñ boroom ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa rajab mooy sama weer rajab nag rajab laa la daan wax daay daal di saxbaan saxri maa rajab saxbaan daal mooy weeru Seydina Muhammad euh, euh, Ramadan di weeru xeet wi kon looloo tax nag mu tombeek nag ñu ciy màggalu daaru ñu ciy màggalal borom Daaru Muxti loolu dafa nekkati lu gën a yéeme lu gën a te taw feexe ba bari na ci guddi gi sax muy nisu saxbaan bari na ay jaamu yàlla yuñ ciy def yoo xam ne si dafa lëkkaloog bisu màggalu Daaru Muxti gi ñu koy def ba tax na kon ñu ngi ci soññee bu baax a baax daal di ci soññee di comme ni ko waa kër sëñ daan diglee rek maanaam ñu sax ci ñu sax ci ak ndigal ndigal bàyyi tere te sax ci ak taalube ndax ak taalube rek moo am solo moom la daan sëñ daan dénkaane ak taalube nag moom moo moo waral yoonu murit fépp fu mu àgg rek mu àgg fa ba tax na yéen ñi li ngeen am xam xam ci wàllu média bi bu ngeen dikkee da ngeen di bàyyi loolu lépp nekk nekk melokaan melokaanu taalube ba kero eh, seenub liggéey di jàll moo tax may soññee ci ak taalube ndax ak taalube lu la waay rawee rek ci la la rawee lu la waay rawee leneen lu dug taalube lu tutug taalube nag jërul ñeewe loolu nag laa bëgg soññee mbokki taalube yi yëpp yéen ñëpp ñëpp ñi xam ci yéen a ngi seetaan Argentine TV ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax moo xam yéen a nga bitim réew moo xam yéen a ci bitim yéen a ngi ci biir réew mi ñu nekk bitim réew maa ngi leen soññ bu baax ñu sax ci ak taalu taalube sax ci liggéeyal Serigne tubaa ndax liggéeyal Serigne Touba yemut ak dara te fu waaye mën a nekk rek war nga koo mën a def moo xam génn nga moo xam yaa ngi ci biir réew mi surtout nag yéen ñi xam si da ngeen génn xaw a tumuranke li leen mën a dimbali rek mooy ak taalu bi kon xam naa ñu yem foofu rek ndax nodd gi ak timis yi mi ngi jub si waaye bëgg nañ cee wax lu ëpp loolu li ci suñu xal nag moo raw li nga xam si moom lañ wax ci suñu làmmiñ di ñaanal bu baax waa Argentine TV fuñ bëgg a àgg rek yàlla àggale leen fa di sant sañ góor a sekk bu baax a baax moom mbokkam mi xaaru na di leen ñaanal yàlla dimbali leen dolli leen tawfeex may may ñu mujj gu rafet ba liñ fuñ bëgg a àgg rek ci wàllu média rek ñu àgg fa ci barke Serigne Touba jërëjëf. Serigne Abdou Mbacke ibnu Serigne Cheikh Fatou Lo moom soxna moom Serigne Cheikh Fati Fall moom borom daarul Mouhty ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko muy kàddu yu soññee ci bis bu màgg bu tedd bi bisu maam Thierno Birahim daamal Darou Mouhty ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, di ñaan sunu borom yàggal la fi ñu yàgg la fee fekk. Touba Argentine TV ci Magal Daarul Muhti édition 2019 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.